28 pro li gën a fës ci xibaar yi tey mooy ni réew mi xëyee dëkk bi ne selaw askan wi demuñ dikkuñ ndax safari ci réew mi ñooy gaaral seen naqar tax ñu amal grève ba benn oto demul dikkul ñu ñëw fu mel ni Touba gis ne benn oto demul lu dul ay sareet ñoo yóbbu askan wi safar seeg apprenti yi mànkoo ne oto du fi dawee waaye boobu la grève mujj na jural tiis ci askan wi non ah. hmm. ba bëgg a dee waaw man kay moom noonu sañan Macky Sall moom sonn ngeen daal ci grève trop ci Macky Sall. ngeen lu ngeen sàkku rek léegi ci transport yi. ah tey bëgg ñu ñëwaat rek. Ah. ñu ñu waaw oto yi dikkaat rek. man la Abdourahmane Mbengue. Ah. Euh, maa ngi fii ci Touba. wax dëgg fa yàlla. Euh, tey moom vraiment ni ñu dundee grève bi métti vraiment vraiment mais lii moom. man dama jàpp ni sax c'est une première. man euh, xam nga Touba dama fi ñëw pour liggéey. mais maa ngi nii ci sareet yi. xoolal ko gars yi ñëpp ci sareet yi. mais nañ ci wax parce que lii doxalul réew quand dama xamul revendique li ñuy revendiquer bu fekkee li ñuy revendiquer mën na leen ci jàppale mais nañ leen ci jàppale parce que lii aussi neexul ci xol dafay stagné te lii baaxul ci dëkk dañu wax ak dëkk baaxul ci réew ñun lii war nañ ko weesu Sénégal ay grève transport transport mais transport moo yor réew quand même qu'on se dise ñun on est ñu ngi dem ñii di liggéeyi man maa ngi liggéeyee ba Mbacké quand même ñu ngi nii ci sareet yi di dem di liggéey. Eh, quand même am lu la yóbbu Mbacke. non non doo ko am da dem ba garage soo demee ba garage est ngay dox sa fi ngay liggéeyee mais da ngay sonn pratiquement doo liggéey date man maa ngi dëkk ba Ndindi. foofu laa logé. nekk lu métti lool lu askan yëpp di naqarlu waaye sëfoor si it ñoo ngi wane seen naqar gaaral seen ay jafe-jafe askan wi ak état bi ngir ñu taxawu seen ay jafe-jafe garab yi kay ñun li ñu ci a la ci a ndax laal doon na loo xam ne ñun lu ñu yóbbu suñu kër rek lañu bëgg te ñàpp mi métt na métt goo xam ne fi ñu ne maar muy nu jàmm muy nu salaat comme duñu ah, loolu yëpp ñu rek eh, eh, eh, yu bari ñu wàññi ci réew mii ku awutu yoon nag ñu war la teg yoon waaye képp ku ne ci yoon nag ñu bàyyi la nga dem ba tey lu jëm ci élèves yeeg jàngalekat yi lu baree bari ci école yi ubbi wuñ tey naki noonu élèves yu baree bari jàng wuñ tey ñoom it ñoo ngi naqaru boobu la grève ngir état bi def li ci war. non dama amoon dama waroon def école tey mais on n'a pas fait cours. Hmm. defuñu cours tey parce que oto yi bu dee daw hmm. jafe pour ngeen hmm. day jafe pour ah, pour pour ñu mën a mën a def cours quoi. Ah. parce moom daanaka euh, suñu école. li parce que lycée Kéré Mbaye laa nekk. comme professeur de mathématiques. mais bu oto yi grévé rek. élèves yi duñ mën a ñëw pour mën a def si cours. parce que dafa sori ak Touba dafa sori à Touba c'est 7 kilomètres à cause de ça ngeen jëf mbokk yi li mooy li gën a ci xibaar yi 28 pro indil leen ko ki féetee ci kàddu gi Omar Sarr bekkaay ne woon ci terrain bi di am mbégte lool seen ànd ak 28 pro mi leen indil li xew ci askan wi daar daar